le, le, le. الله الله الو الو الله الله الو الو الله الله الو الو لا لا لا لا لا asalaamualeykum ñi ngi ñaan ñépp ku nekk ci biti eh, tijaan Dramé mi ngi joxe ñaan yi mu def ko ndànk ndànk ñu dugg ceeg genn génn ceeg jàmm ci barke sëñ Babacar ci barke Bayam barke yoon bismillah kon mbokk ñu teewlu kenn ku nekk jàng gannaaw boobu musuloo seytaane dafa astaghfirullah laa alladi la illa wa hayl qayyum ñetti yoon ñu jàng fatiha ak ñetti saatu fatiha bismillah ñépp góor ak jigéen fu ay nekkat di ko dégg rek nga def ko ñu ñaan yàlla ci barke Seydi Hadji Malick ak njabootam ci barke yonent bi yéen yàlla defar gàmm gi ci anam yépp nag yàlla sàmm njaboot gi ñëw ñëw ci jàmm fekk fi jàmm delloog jàmm bàyyi fi jàmm barke yonent bi bismillah ñu teg ci juróom-ñaari juróom-ñaari ayatul kursi yi juróom-ñaari yoon ayatul kursi yi juróom ñaari ina ansalnaahu bu ne ànd ak bismillahi juróom-ñaari li ilaafi qurashin bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim juróom ñaari qul wallahu ahad bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim inna a'taynaka al-kawsar juróom ñaari inna a'taynaka al-kawsar bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim juróom-ñaari qul huwa allahu ahad bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim juróom-ñaari qul a'udhu bi rabbil falaqi bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim juróom ñaari qul a'udhu bi rabbin naasi bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim ñu teg ci yasalaamu ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn ku ne na jàng juróom ñetti téeméer yasalaamu ak juróom ñaar fukk ak benn yasalaamu 371 yasalaamu Silva Okursy. yaa latiifu cent vingt-neuf yàlla latiifu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yaa latiifu cent vingt-neuf ñu tëjee ko ñetti salaatul faatihi ñetti salaatul faatihi allahuma hada duau wa minka lijabatu wa hada aljuudu minna wa alayka tukulaanu wala hawla wala quwata illa billahi al azim walhamdulilahi awalan wa axiran wa zahiran wa batina wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran daiman abadan ila yawmi diine wa hasbuna allahu wa nicma alwakilu nicma almawla wa nicma alnasir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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ne ñooy ànd ak waa xadra seydil xaaji malik si fii si jàkkey sëriñ babacar si ni ko kilifa yi tërale bés bu jot kenn ci njaboot yi nga xam ne moo nekk ci fii mu génne benn bind ci burdu tey ki ñu fi am muy xalifa ababacar gasama kenn ku nekk xam na ko way juram mooy may sa gasama yàlla dogal maamam kenn kuy nekk it xam na ko ci keppaaru Cheikh Mouhamadinil Mansour mu nekkoon góor gu am taxawaay ci wetu sëñ Mansour eh, kii nag sëtam la yaroo it ci keppaaru Cheikh Mouhamadinil Mansour yàlla boole ko ci wàllu tarbiya Mouhamadin Mansour bu maam Abdul Aziz Dabbaax mu nekki jàngalekat boo xamante ne ci commission bi li mu ci yore fonction yi mu ci yore bari na Ramadan yeneen ak yeneen ak yeneen moom incha allah moo ñu war a defal li ñuy tudde al isra wal mi'raj E, yonent bi jóge bi mu jógee makka dem baytal maqdis jóge baytal maqdis dem ci borom bi tabaraka kon ñu bàyyil leen ko e, muy kenn xam naa ne dañuy wax olof day wax ne ku wax feeñ su ko defee ñi fi nekk ñépp yàllaa ngi dogal loolu moo nekk seen yëngatu ci xadara bi fexe ba lii dundal xadara bi muy xam-xam ñu def si seen yitte ba fu xadara bi soxlaa yebal leen ñu dem représenté leen fa tabarakallahu kon bay xalifa ci ndigalul kilifa yi ci ci ndigalal kilifa yi ci représenté bi nga représenté commission bi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 abil abbas ahmad bni muhammadin itijani alsalimi alfatimi ridan yashmalu jamica xulafaihi wa muqaddamihi wa muridihi wa ahibaihi ajmain ixwat aliman fi kulli makan alsalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi tedd yi ñu bokk ak zaawiya bu tedd bii di përëb bu sell bii nga xamante ni suñu góor gu baax gii moo fi tëdd nga xamante ni dolli na daara eh, ja bërëb bi beneen wàccuwaay muy mawlaana abi bakr radiallahu anhu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole jéggal nuyoo bi nag ñu koy jaarale ci loxo Baye Xaali Njaay mii di président bi nga xamante ni moo jiite commission culturelle bi mu jaarale ko ba ci ay kilifaam ñi mu bokkal xadra bi Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Sy Al Amin ak sëriñ Moustapha Sy Al Amin ñu yóbbu ko ci seeni kilifa yi nga xamante ni ñoo leen teg ci bërëb bii ñu di ko saytu muy mawlaana alxalifatul aam li taifa atijaniya abi bakr si mansour ayadahu llahu wa nasarahu xafidahu wa raahu ñi ngi nuyu it suñu ndijaay ji ñu feggool di sëriñ xasan si ak euh, mouhamadul mansour Diène ak sëriñ cheikh Diène ak al ustaaz al imam abdul kan ak mboolem asatiza ak aimma yi nga xamante ni ñi ngi ñëw rot si ci bërëb bii dukuran wa inaasan ñi ngi leen di nuyu di leen zika di leen di jégglu nag ci kàddu gi ndax lottu nañ tuuti nañ ci bërëb bii ñu toog bokk ci ñi fi gën a néew xam-xam ci xadra bi bokk ci ñi nga xamante ni gëm naa ni dara dara dara dara nekkul ci seen dënn ñu jox leen ni leen tey yow yaa war a firi bunt loolu sas wu rëy rëy la ci ñun kon fa tabarakallahu ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu ñaanuk yonent yàlla muusa ba ak haaruna ni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp fa tabarakallahu comme waxtu yu dañuy song rek li nga xamante ni moo tax ñu toog fi tey ñu war a waxtaane buntu bu ama am solo donte nag burdu buntu yépp am solo waaw ndax buntu boo ci yëkkati rek da nga naan bii mooy buntu xasida bi tey ñu war a ñëw ci buntu bi nga xamante ni mooy al israa wal mi'raaj isra wal mi'raaj mooy rañaan gi yonent bi aleyhi salaatu salaam rañaane jóge màkka dem baytul maqdis jóge fa dem ci boroomam subhaanahu wa taala yéeg dem ci boroomam waaye ci bunt bi bu ñu xoolee rek li ci borom bunt bi njëkk a jàngale ci résumé dafa mel ni rek daf ñu xamal ni amul benn yéeguwaay wala képp koo xamante ni ñi ngi jot li ko ci yow wala képp koo xamante ni am na lu ñuy yaakaar ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën moo ci gën a jekk ci bunt bi lañuy xamal ni kat ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kéemaan la bu mag a mag a mag a mag ci képp koo xamante ni yàlla may na la xel mooy xalaatee waaye it ci bunt bi la ñuy ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewal gi gën a màgg ci xéewal yi su ca jógee ñu wax ci résumé rañaan gi sallallahu alayhi wa sallam rañaan bu ca jógee dana wax daraja yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ko am na ko ci boroomam subhaanahu wa taala danañu waxit ba mu rañaanee dem ba baytul maqdis yonent ya fa dajeel ak jiite ga mu leen fa jiite danañu wax bi muy xotti asamaan yi xotti gi mu xotti asamaan yi ak ñamu fa fekk ak fan la jëm ak lan la wuti ji woon lan la fa jële waaw danañu wax it wan danañu won ni it aussi lépp luy maqaama lu nit di séenu ak loo xamante ni bët mënu caa tegu ak loo xamante ni nopp mëseesu mëseesu koo dégg ak loo xamante ni xel musee su koo xalaat yàlla jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ci wéet moom kot moom yàlla kenn ñetteelu leen wax na it aussi sës gi mu sës ci boroomam subhaanahu wa taala sës rëkk ba benn distance amul ci digganteem ak boroomam wax na it li ñu fa ràngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay daraja wax na it mbekte mi nga xamante ni mi ngi koy jagleel mbooloom lislaam ngir wàccuwaayu daraja ji ñu am ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir li ko yàlla jox kon mu alfaslu saabi fi israihi wa miraajihi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy buntu juróom-ñaareel bi jàngale ci rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min makkata ila baytil maqdis rañaan gi mu rañaane jóge makka dem baytil maqdis su def après mu pare def miraajam jóge baytil maqdis dem ci boroomam subhaanahu wa taala moo tax mu ni yaa xayra man yammama alaafuuna saaxatahu saayan wa fawqa mutuunil aynuqi rusumi yaa ñépp xam nañ ni xarfu danañ ci woo ku jege danañ ci woo ku sori léeg-léeg daañ ci woo ku sori ngir màggal ko léeg-léeg daañ woo ku sori ngir màggal ko noonu la def ak suñu borom subhanahu wa taala léeg-léeg ngay gis ki ñaan ni yaa rabbi te gisul yàlla utilise yaa léeg-léeg nga gis kuy ñaan ni yaa allah utilise ya fii mu ni yaa xayra man yammamal aafuuna ey yow mi gën ji aji tedd ja nga xamante ni bi maanaa yaa xayra karimin yow aji gën ji aji tedd ja nga xamante ni mu indi man ñépp xam nañ ni man lan mooy taxawaayam ci wàllu bayaan fii dafa màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow gën ji aji tedd ka nga xamante ni ku màgg ka nga xamante ni yemmama dana jublu alaafuuna way xaaraani saaxatahu ëttam danañu jublu ci ñoom saayan mbir mu ñuy way dox wa am na ci ñoo xamante ni way war lañ bi maanaa wa rukbaanan fawqa mutuunil aynuqi ca ginnaaw joggare naaga ya ar rusumi ya di way riñ ci li ngay dégg ci bayit bii mu ni képp koo xamante ni ñi ngi am lu ñuy sàkku ci yow ba jàpp ni yow yaa fi gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën ndax doyey càkkutéef ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yem nit ak koo mënti doon amul looy am ci sa àdduna luy bàyyi ko ci yàlla wala lu war a départ départ ci suuf jëm ci yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonul sa waasita sa diggante ak sa borom waaw lu fi nit am moo xam luy bàyyikoo ci kaw la di ñëw ci yow wala lu bàyyikoo ci suuf di dem ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa waasita ak sa diggante ak sa borom kon ñi nga xamante ni ñooy woy xaaraan yi ñépp dañuy dugg ci biir anbiyaa yi dañuy dugg ci biir rusul yi dañuy dugg ci biir awliyaa yi dañuy dugg ci biir abdaal yi dañuy dugg ci biir mbooleem nitu yàlla yi dañuy dugg ci biir mbooleem borom xam-xam yi dañuy dugg ci biir ndax kenn ku ci nekk am nga sa yitte looy sàkku ci sa borom subhanahu wa taala bu dee anbiya yi am na ay garaat yuñ doon sàkku ci seen borom ñu ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa bu dee awliya yi am na ay garaat yu ñuy sàkku ci seen borom ñu ngi ko amee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax boo demee ci maam Seydi Haaj Malik radiyallahu anhu ca bihi bihi yoom yooyu ci nuun ya ba mu demee ba bañ def lu ñuy wax al itnaab dafa tënk wax ji rek ni daayil itnaaba qul kullul baraya uniilu maa uniilu bil mubini jarul nga nekk fii di expliquer naan diw ci barke yonent bi la amee lii yonti yàlla Moussa ci barke yonent bi la amee lii yonti yàlla Yaxya ci barke yonent bi la amee déedéet nee na bàyyil itnaab neel waxal ni képp ku waa lépp lu waay am yaa ngi ko amee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daayil itnaaba qul kullul baraaya unilu maa unilu bil mubiini lu waay am yaa ngi ko amee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni da nga gis ni ñi nga xamante ni way xaaraan yi dana ci am ñoo xamante ne seen cofeel ak seen bëgg-bëgg ci yeneen bi sallallahu alayhi wa dana leen jaral ñuy xotti ay junni junni kilomètre di ko dox da wuti ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàgg dox gi ñuy yàgg dox moo dem ba seen tànk yi riñ ci ñoom naaga yi ñuy war waaw dem ba seen tànk yi riñ ci min shiddatil wat i moo tax seen tànk yi dem ba riñ ci ngir li leen ko waral li ko waral mooy daw seen cofeel moo leen di puus moo leen di rëngëj yóbbu leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bu ñu doon daw ay kilomètres ay kilomètres kilomètres lu ëpp li ñu doon daw duñu ko yëg ndax cofeel waaye am na ci ñoo xamante ni daañu dox waaye am na ci ñoo xamante ni daañu war ci kaw ay naaga di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum mu teg ci ni waman huwa al ayatu lkubra li muctabirin waman huwa nicmatu luzma li mughtanimi mu ataf woy wii ci woy wi nga xame baat bayit bi nga xamante ni moo ko jiitu bu ñu fàtte ni euh, al isra wal miraaj dafa bokk ci kéemaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom burdu taf ko bi mu jugee ci alquran rek ci kéemaan bu màgg boobu rek jël isra wal miraaj di kéemaan mu taf ko ci beral ko buntu boppam waaye mënoon a dugg ci buntu kéemaan yi mu ni wa bi maanaa wa yaa man woo naa la yow mi nga xamante ni huwa moom dong al aayatu mooy kéemaan ba wala al aayatu mooy màndarga ba al kubra màndar ba gay bay gën màgg li kulli mu'tabirin ñeel képp koo xamante ni dana xam li mu'tabirin tanwin googu taksiir la tanwinu taksiir képp koo xamante ni rek penseur nga yaa ngi xalaat di am looy recherche yonent bi sallallahu alayhi wa moo ndar keppe mandarga bu mag bu nit ñi di xalaatee waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na kéemaan bu nit di xalaat pour mën a waaru ndax yàlla subhanahu wa daf kaa bind moom dong subha eh, sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy al insaanul kaamil kon lu nit di war a xalaat ci bin ci dundam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na la lépp ngir nga am eh, résultat bu baax ci àdduna ak ci àllaaxira waaye wa man woo naa la yow mi nga xamante ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa huwa moom an amatu mooy xéewal ba al uzma bay gën jaa màgg li muxtanimin ñeel képp koo xamante ni màng bëgg naa màng koom képp ku bëgg sa poos fees say magasin fees say yiw dolliku yonent bi sallallahu alayhi wa mooy xéewal bi nga xamante ni doy na sëkk ci lépp lu nit di màng ndax bihil ijaadu wal imdaadu amul xéewal bu gën a màgg ginnaaw ni'matul ijaad ak ni'matul imdaad def gi ñu yàlla boole ci jullit ñi le fait que yàlla amal ñu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal la waaye la fait que yàlla tëbbaat ñu ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen xéewal la waaw beneen xewal a ngoog kon ñaari xewal yooyu rek mënuñu mënuñu cee fay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëñ borom daara ji radiyallahu anhu yàlla nañu ko yàlla fayal moom mi nga xamante ni jotaay bii miinoon na ko lool dafa def tazil ci fala budda ci benn bayit mu wax ci benn wax bu yéeme mu ne ajaztu bi an uxsi bi numaaka rabbana wujudi yuxiqu lxamda dawman bi faydati mu ni yàlla lottu naa ci takk xéewal yi nga xamante ni defal nga ma ko man Serigne Mansour li tax ma lottu ci ndax amal jëmmi amal gi ma amal nii bu ma la ko bëggoon a sant sax duma ko mën waxatuma laak leneen li fi fekk am gi muy wilaaye geek barke beek xam-xam beek daraja jeeg li ko yàlla defal yépp nee na yàlla waxuma yooyu yépp féetale ak à bord mais amal jëmmi amal gi nga ma amal rek su ma la ko bëggoon sant du ma fi duma fi jóge waxatuma laak leneen ak leneen moo tax maam Seydi Haaj Malik radiallahu anhu wax ni laa uxsiyanna thana alayka anta kama rabbi ala nafsi qad athnaytaya allahu waaw nee na yàlla lottu naa ci sant la cant wu yelloog sa jëmm ji waaye yàlla yàlla nag ma wuutu ci sa bopp santal ma sa bopp moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy an nicmatul uzma li muxtanimi te xéewal yooyu wax naa ne amul benn xéewal bu gën a rëy ginnaaw ni'matul ijaad yi ak imdaad yàlla gi boole gim ñu boole ci kuréelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad manna allahu ala almuminina id min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la seen biir benn xéwal a ngoog boolewu ko ci xeetu malaayika yi boolewu ko ci xeetu jinné yi ci nit ñi la ko boole ñaari xéwal a ngoog beneen bi mu indi ñu alquran beneen bi mu ñuy defal tazkiya beneen bi mu ñuy jàngal nan lañu war a comporté woo ci kaw suuf pour am ngërëmal yàlla waaw juróomi xéewal yi aaya bi tënk na ko te loolu yàlla mi ngi ñu ko defal ci bokk gi ñu bokk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam yamu ca mu ni sarayta min xaramin leylan ila xaramin kama sara albadru fi daajin min azulami sarayta rañaane nañu la sarayta rañaane nañu la dooni rañaan nga de ndax yonent bi dañ koo rañaane donte borom téere bi daf ko tëgg ci comme tëggiinu kuy wax ni yonent bi sa alayhi wasallam moom moo rañaan waaye doo ko firee ni rañaan na rañaane nañu ko sarayta sarayta rañaane nañu la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu buy nettali xadisul isra laylata usriya bi lay utilise guddi giñ ma reñaane kon reñaanewul boppam sarayta rañaane nañu la min xaramin nga tukkee ci xarumu makka ila xaramin jëm ci xaramu baytul dis waa lu tax mu ni min xaramin te xadis yi ci ñëw xadisul isra yi ñi ngi wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rañaan mi ngi déparé ci néegu baytu umu haani la déparé parce que néegu umu haani dafa bokkoon ci xarumu makka <coughs> ballin loo tax mu wax loolu moo tax mu ni sarayta min lay laylan ila xaramin kama saral badru comme ni weer di rañaane fii daajin ci aji kukk min a zulami ci lëndami ni weer di rañaane ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko rañaane mu wuti ji boromam kañ lañ ko rañaane fan lañ ko rañaane kan la àndal fan la jëm bi mu demee ba baytul maqdis lu mu fa def ba mu fa jugee ku mu àndal kan ak kan la romb yooyu yëpp Seydi El Hadji Malick résumé na ko ci anam bu gàtt bu fas ca wa fi zakin xad xalat min chahri mawlidihi min annubuwati aama alxubbi lilquzami wa qiila fi rajabin fi dalika alamalu al'ana assalaamu ala almuxtaari zi lqadami asra bihi llahu tashrifan li miknatihi xatta ra'a ma ra'a min ayihi ljusumi Seydi Aj Malik radiallahu anhu nee na sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ko rañaane ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm weer wii ñu nekk ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rañu rañaane yonent sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ko yàlla yónnee ba pare ba mu am fukki at ak euh, fukki at ak ñaar ñu ne am nañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi sallam ci ñaar fukki fan ak ñaar la gàddaay rañaan waaye ci weeru rajab la rañaane kon wuute am na ci diggante rajab ak weeru gàmm ban la ci yonent bi sallallahu alayhi rañaan waaye li ëpp ci li nga xamante ni moo gën a siiw te nit ñi nekk nekk ci jamono bi di ko def mooy weeru rajab waaye nag euh, yàlla nañu yàlla fayal Seydi Hadj ndax ku ku maandu la ci diggante borom xam-xami ndax boo demee ci jawaahirul maani Cheikhuna Tijaani sama benn sëriñ daf ma ko fàttali ni ma boo toogee ci jotaay bi na wax ni cheikh nee na ci jawaahirul maani kullun ala maqaamihi yatakallamu nit yàlla bu ci nekk fii sa tolluwaay toll ca ngay waxe moo tax Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu du wax du weddi kenn lu nit wax dana ko indi ba pare indi gis-gisam waaw mu wax ñu ni yonent bi salaa bi mu rañaanee foofu dépare Makka wuti ji baytil maqdis ci tënk rek ndax waxtu wi xot nañu fekk na fa yonent yi mi ngi ànd ak jibril yéeg alburaax fekk na fa yonent yi bi mu ñëwee yonent yépp a ngi def ay sàppe kenn ku ci nekk di jañ sa moroom bëgg a jiite waaye kenn nanguwul dem ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñëw jàpp jibril moo jàpp ci loxo yonent bi yóbbu ko ci kanam ni ko jiiteel kon jiite googu ko jibril jiiteloo rek am na lu mu junj foofu am na werante ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa reñaan ba ñëw doog a julli wala bi mu jullee ba pare la doog a dem rañaane foofu boroom xam-xam yi werante nañ ci bu baax a baax ndax li tax ñu werante ci dañu wax ni euh, yonent bi bi mu demee ba ci asamaan yi bi asamaan bu njëkk bi mu romb fa aadama beneen bi ci topp mu romb fa isa ak yaxya beneen bi ci topp mu romb beneen bi ci topp mu romb fa idris beneen bi ci topp mu romb fa Haarun beneen bi ci topp moroom romb fa Muusa beneen bi ci topp moroom romb fa Ibrahima alayhi salaam asamaan par asamaan benn par benn nee na bi mu ñëwee ba ci asamaan yi fu mu ñëw ba egsi dafay laajte kii kan la Jibril ni ko kii mooy diw ñu ne su fekkonte ni laataa muy rañaan daje na ñoom kon dana leen xam bu daje ñoom ci asamaan yi am na ñu wax loolu waaye li gën a siiw dañu wax ni bi muy dem. la rañaan ànd ak la rañaan bi mu julli bi mu jiitee ba pare euh, lay doog a jéeg dem ci kaw am nañu wax ni dañu def mbooloo délégation ñoom euh, malaaka yi ak anbiya yi escorté ko ba pare wala ñii dañu wax ni anbiya yi dañ koo jiitu malaaka yi escorté ko mu topp mu topp seen gannaaw kenn ku ci nekk ku yegg ci sa maqaama nga taxaw fa wa ma minna illa lahu maqaamun maalum am nañu wax loolu su ko defee mu dem ba yegg ci sidratul muntaha bi mu demee ba ci sidratul muntaha am na benn minbar bu yaatu bu rafet bu taaru jibril mi mu àndaloon dafa dem ba ci minbar bi kenn toogu ci mu dem ba ci minbar bi toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko jibril looy def nii mu ni ko fii mooy sama yem waay mënuma koo weesu tarfatal ayn fii mënuma koo weesu wa ma minna illa lahu maqaamun maalum kenn ku ci nekk xam nga sa yemuwaay foofu lay yeneen bi sallallahu alayhi foofu la am lu ko këf lu ko jël yóbbu ko ci boromam subhanahu wa wax nañ ni lépp loo xamante ni mi ngi yéeg du weesu sidratul muntaha mboolem fi yépp seen xam-xam foofu la yem seeni jëfit mboolem seen jëf yépp foofu la yem mënu koo weesu moo tax mu ni wa bitta fanaan nga am na benn beneen nusxa bu ñëw ni wa zalta wala wa bi kasri zaali wa fatxiha mujj nga sax bi maanaa sirta mujj nga tarqaa di yéeg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila an jëm ba nga am manzilatan wàccuwaayu daraja bu màgga màgga màgga màgg tanwiin wi taazima tax am nga wàcc waaye daraja bu màgg màgg màgg boo xamante sa borom boo xamante ni lam tudd rak dabee fu ko walam turamite sàkkee fu ko min xaaba xaw say ni lu tolloog xala xocc ñaari xala euh, euh, benn xala ñaari xala xocc distance bu gàttee bi toll noonu nit dabu la ci ba di la ci séen xaaba xaw say ni nag baatu arab la boo xamante ni xaabayil xaws la ñuy wax ñu tàmm ko ba alquran ñëw jël baat bi niñ koy niñ ko taqlibee mu ànd ceeg ñun fii dañuy wax ni boroom xam-xam yu bari dañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba jege boromam distance bu toll noonu maazallah yàlla ëpp na di am distance ak boromam ak ak jaamam boobu yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la Cheikh na Tijaani wax su ngeen demee ci irshadaatu rabbaniya fii borom hamziya di wax nii ni fasifi la allati kaana lil muxtaari fiiha alal buraaqi stiwaaw na tidiane ci charxa ba mi ngi wax ni distance boobu toll ni xaaba xaw say ni diggante jibril la ak yonent bi sallallahu waaye du diggante jibril du diggante yonent bi ak yàlla waaw yàlla yonent yàlla huwa min hablil warid huwa aqrabu min hablil warid bañ wax ni sa bët bi sa baaraam bi boo ko jëlee teg ko ci sa bët lim lay jege jege yàlla la ko gën a jege kon yàlla dina am ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam distance te kenn ku ci nekk ci ñun su invité ganam këram ndax daf koy teg ci saalam di ko yónnee teraanga yi ba heure ñibbeem jot mun ko demal ñibbi déedéet soo invité sa gan jëlee ko fu sori indi ko ba ci sa wet mu jege la ah di nga jomm am ak moom benn distance bi donte foofu maa ngi bëgg a ñëw dugg ci ñi nga xamante ni dañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisul yàlla yàlla dina invité yonent bi fii ci suuf yóbbu ko ba ca kaw te du jàkkaarloog moom ñu ëpp ñu ciy wax nag dañu sukkandiku ci waxu si situna Aïcha ndax Aïcha jigéen la ba pare nekkoon ndaw ci wetu yonent bi sallallahu alayhi kon yonent bi am na loo xamante ni du ko ko confier ci ay secret waaw am na loo xamante ni yonent bi du ko ko confier ci ay secret moo tax Abbas la ko wax wax na ko ibnu abbas ak ñeneen ñu dul moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñetti xeetu xam-xam benn bi dañ koo digal ni ko naka wax ñépp sañu ko nëpp muy lislaam bi ak lépp luñ ci pratiquer beneen bi suñu borom subhanahu wa taala daf koo tànnloo mu tànn ci ñi ko neex mu wax leen ko déy leen ko du ñépp la koy wax beneen bi moom digganteem ak boroomam la kenn du ci jot tarfatal ayn ñetti xeet xam-xam yooyu yoon yen bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko kon pourquoi pas gis yàlla gi yonent bi sallallahu alayhi amul ñu ko bégalee ci saxaaba yi nangul ko ñenn ñi bañal ko ñenn ñi amaana bañal na ko sittuna Aïcha ba pare nangul ko Abdullah ibnu Abbas moo tax sittuna Aïcha ñëw na Abdullah ibnu Abbas di ko laaj ndax yonent bi gis na yàlla mu ni ko laa bañ ko sonalee sonalee sonalee sonalee sonalee ba na ko ndax yàlla ndax yonent bi gis na yàlla mun leen gis na ko mujj gi dafa dellu ni leen gis na yàlla moo tax maam Seydi Haaj Maalik radiyallahu taala anhu wax ni wa fil israai qaalu gayra hazlin ra'al mawla faqad tafa xayra diini nee na wax nañ ci isra wal miraaj bi ñoom borom xam-xam yi nii yonent bi sallallahu alayhi sallam gis na yàlla waaw lu fi indi gayra hazlin muy wax joo xamante amul benn mbóorante amul benn caaxaan wax ju dëggu lan lañ wax ni ra'al mawla moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na yàlla faqad tafa xayra diin maa kadaba alfuaadu maa ra'a ñu dem wa qaddamatka jamiu alanbiyaai biha wa rusli taqdima maxduumin ala qadami wa qaddamatka jiital na la jamiul anbiya u mboolam yeneen ci yépp jiital nañ la biha ci place al buqa buqaatu beytil maqdis jiital nañ la ca place boobu war rusli yeneen ci yépp jiital nañ la jiital nañ la taqdiman ab jiital misla taqdimi maxduumin comme jiitalu ku ak njaatige wala jiitalu surga wala njaate gi ala max ala xadamin ci ay surgaam ni njaate gi di jiitalee ni surga di jiitalee ay njaate gém topp ci seen gannaaw lu ñu bëgg mu def ko noonu la la anbiya uy jiitalee ak yonent yi waaw njaate gi ni muy jiitalee ay surgaam wala bihaa bi am na suraax yi ñu wax ni daf dañ koy delloo ci manzila wa qaddamat ka jiital na la jamiul anbiya mboolem anbiya yi bihaa ci manzila boobu jiital nañ la ci comme ñoom lottu nañ ñi xam ni mënuñu la faa mënuñu faa yegg seeni pexe mënu leen faa yegg seeni ñaan mënu leen faa yegg ñun la demal sa yëfa demal sa yëfa jiital nañ la tax diima maxduumin ala xadami te mooy lan bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam demee ba baytul maqdis jiite anbiya yi ak rusul bi ñu ñëwee ñuy dégg digal julli gi kan mooy jiite jibril jàpp ci loxoom dem jiital ko mu jiite leen jiite googu lay julli lay lay nettali fii wa taqaddamta li salaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa antal imaamu yàlla nañu yàlla fayal góor ñi yàlla nañu yàlla fayal suñu mag ñi waaw woy nañ ci woyu rafet def nañ ci woyu jekk wa anta taxtariqu sab'a tibaaqa bihim fi mawkibin kunta fihi saaxibil aalami wa anta yow yonent bi sallallahu alayhi yaa ngi xotti di dog di romb as-sab'a tibaaqa saba yaa ngi dog asamaan juróom-ñaar ak tibaaqa ya di way déele yi nga xamante ni dañoo tegaloo diis yow yonent bi sallallahu alayhi yaa ngi dog asamaanu juróom-ñaari moom la maam Seydi Haaj Malik junj ni bi aadamin marra isa yusufin wa xanuuqin summa haaruna muusa wal abi rahimi waaw ci asamaanu juróom-ñaar bi aadam romb na fa yonent yàlla aadama ah isa yonent yàlla isa ak ñoom la romb ci asamaanu ñaareel yuusufin moom la ci asamaanu ñetteel yonent yàlla yuusuf xanuux mu yonent yàlla idris moom la romb ci asamaanu ñeenteel summa haaruna haaruna moom la romb ci asamaanu juróomeel muusa moom la romb ci asamaanu juróom-benneel wal aburahimi mu jël maana ibrahim maana ibrahim mooy al aburahim wal aburahim ak baay bu bëri yërmande muy ibrahima alayhi salaam moom la romb ci asamaanu juróom juróom-ñaareel dem ba wàññeeku ñëw toll ci mu yonent yàlla Muusa mu ni ko lan lal sa borom jox mu ni ko sama borom jox na ma juróom fukki julli mu ni ko juróom fukki julli yooyu dafa bari sa xeet du ko attan sama xeeta leen gënoon a jàmbaare foofu ëppoo leen doole te mënuñu ko woon demal nga ñaan sa borom mu wàññi la muy jaabante di dem di wàññi li dem di wàññi dem di wàññil ba yooyu yëpp mujj a doon juróomi julli wa tilka xamsu faridatin yakunu laha thawaabu xamsiina fi ixlaasi muxtadami man jaa bi xasanatin falahu ashru amsaaliha moo tax ni wa ante yow yonent bi sallallahu alayhi fekk yow taxtariqu mbir moom la yow taxtariqu yaa ngi xotti di dog di romb asaba atibaq asamaani juróom-ñaar atibaq di way déeli bihim ay marran bihim mbir mu ngay aji romb mala anbiya ci asamaan ya fii mawkimin mbir moom leen ngay aji nekk ci mbooloo malaaka malaaka yaa ngi la escorté ngay yéeg yow de kunta nekk nga yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saaxibal alami di boroom drapeau ba wala di boroom màndarga ba fii ca mbooloo ma maanaam soldaar soo gis dafay am koo xamante ni moo leen di jiital su yëkkati ko mbooloo mi mu àndal yëpp danañu yëkkati ko waaye su ndërmeeloo rek mbooloo mi mu àndal dana ñu ndërmeeloo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni rek comme général ci biir armee gàddu drapo bi nekk ci seen biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fa woon di gàddu drapeau waaye ba mu àndeek malaakay yi niñ ko escorté ku ko seen xam ni waajaa ngi ne nee na ngay dem di dog manazil yooyu hatta ida lam tada dem nga ba bàyyi woo yow yonent bi sallallahu alayhi wa salam isa boobu zaida la ci xata lam tada xata xarfu gaayatina ah. dem nga ba bàyyiwoo sha'wan benn lef bi maanaa benn gaaya bàyyiwoo ko li mustabiqin ñeel bépp aji nam ma rawante ak yow amoo kenn koo xamante ni bàyyil nga ko place bu mu war a mën a rawante yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu nit di jël ci lu ñuy liy cër dajale nga lépp yàlla jox na la yàlla dafa féetewoo ak yow amul kenn koo xamante ni jege na la koo xamante ni mi ngi nam rawante mi ngi lay jege mi na dunu wi tukkee ci mu ak jege wala mar xandu caageen benn yéeguwaay li mustanim ñeel ku nam ma kawe amul kenn koo xamante ni bëgg naa rawanteeg yow nga bàyyil ko espace boo xamante ni mën na la ca rawee waaye amul benn daraja bu ñuy yéeg bu nit di soxla di joti ji te yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotoo bàyyiloo ci kenn ndax daraja bi gën a rëy mooy yàlla sës gim la sës rëkk ci boppam te rañaane gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla jagleel du benn yoon la rañaane werante nañ ci diiru li mu rañaane waaye Seydi Haaj Maalik radiyallahu anhu jàngal nañu ci bu ñu déggee ci dégg bu gàtt da ngay xam ni yonent bi 34 fois la rañaane wa zaaka fi yaqazin muy benn isral manaami jalun muy 33 jalun 33 la kon lépp boo ko boolee muy 34 kon 33 yëpp yenent bi dañ koo reñaane ci ruuxam euh, benn bi dañ koo reñaan ci ruuxam ak jasadam yàlla bu ne subhaanallazi asra bi abdihi al abdu buñ ko waxee mooy al jasadu wa ruux al abdu buñ ko waxee mooy al jasadu wa ruux subhaanalladi asra bi abdihi kon foofu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam ak jëramam ñoo àndanoo rañaan ci kan ci ci ci boromam subhaanahu wa taala mu ni xafatta suufeel nga yow de suufeel nga kulla maqaamin bépp maqaama li gayrika bépp maqaama bu keneen moomoon ku dul yow yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suufeel nga ko ndax ñoom ñëpp fa ñu amoon bay tiitaru yow romb nga leen ba dem suufeel nga ko bil idaafati buñ ko askanalee ak li nga xamante ni moom la la yàlla jox ci sa maqaama bil idaafati ila maqaamika képp koo xamante ni yàlla jox na la maqaama bu kawe suñ ko nattaleeg sa maqaama yow sa maqaama ëpp na ko fuuf te suufeel nga ko lool lool ndax romb nga ko bu yàgg di dem kañ is nuudiita ba jooreef la bañu ñu la woowee ni la udunu yaa muhammadu ba nga demee ci bërëb ba nga xamante ni kenn nekku fa ku dul yàgg sa borom subhanahu wa taala yàlla ni la jege sil bërëb ba nga xamante ni dara nekku fa waaw isnu di te jamono ba wooweef la bir yi ci yëkkati gi la yàlla yëkkati yóbbu la ca kaw anga ànd ak jibril yéeg ci alburaq ñu yóbbu la ba ci sidratul muntaha ñoom ñu yam fa yow nga yegg ci sa borom foo xamante ni yonent mus fa yegg malakul muqarrab mus fa yegg malaaka mus fa yegg du benn mindaafoon bu mus a yegg fa nga yegg kon yëkkati googu nga xamante ni moom la la yàlla yëkkati ba nga kawee nga suufee lépp lu la féete suuf nit bu nekkee ci kaw lépp lu lu ko féete suuf rek suufeel na ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nga suufeele maqamatul anbiya wal awliya bir rafay ci yëkkati gi mislal mufradil alam nga mel ni ki mufradul alam ci bi ñu la woowee ni la yaa muhammadu damma gi nga xamante ni moom lañ la séddi ndax mufradu alam boo boo ko joxee yaawul munaada da nga koy damma xukma mooy damma léegi lan moo wax lan moo tax waxul ni is nuudita bi dammi mu wax ni is nuudita bi rafi parce que nit ki boo koy ñaanal yàlla yëkkati ko doo ko doo ni koy dammaka allaahu da nga naan ko rafaaka allaahu yàlla na la yàlla yëkkati ndax cosaanu masque boobu cosaanam bi nga xamante ne moom la ci talmeex mooy damma rafo faro la ci moom banqaas la ci moom is nurita bi rafa li tax yàlla yéege la nag ci asamaan yi gën a kawe la tax yàlla jox la lam la jox yépp kay ma tafuusa ngir nga tuufu bi waslin ci joti mustatirin ay yi mustatiri mu ni bi waslin ay yi mustatiri bi waslin ci joti mustatirin bi aji nëbb ay yi mustatirin bu ci aji nëbb yàlla daf la yéege ci kawam pour nga joti ci moom joti koo xamante ni bët du ci tegu xalaat du ko xam kenn mënu koo natt ba xam fi nga xamante ni fa ko tolloo fa nga ko tolloo bi mustatirin bi aji nëbb anil uyuni walis bët yi ndax yonent bi sallallahu wax na ni boo demee ca bërëb yu tedd yooyu gis na fa loo xamante ni bët seesu koo gis ah nopp mosee su ko dégg mosu sax toq ci xolu doomu aadama waaw mosu faa toq waaye li muy gis li muy yéeme yéeme yéeme yéeme ci nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo yaru raful bëtam jekkas nikuwul lu dul benn place bi nga xamante ni moom la taxaw lenn benn objectif la am mooy boromam subhanahu wa taala kon zuxrufaat yeeg taar taar yeeg yëpp dara intéressé wu ko woon waaw dara dara dara ko woon boroomam rek moo ko yéemoon moo tax yàlla wax ni maa zaagal basaru wa maa taxa maa zaagal basaru wa maa taxa kon ñu wa sirrin ak secret ay muktatim bi aji nëbbu ba loolu amee nag fa nga làq yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kulla faxaarin bépp puukare gayru mushtarikin do aji bokkaale ci puukare boobu wajus ta nga jéggi nga sarma saraan nga jus nga jéggi kulla maqaamin bépp maqaama gayra musdahamin doo aji raj raj loo ci maqaama boobu yow yonent bi sallallahu alayhi la wa jalla màgg na ba ëpp xel miqdaaru ma kemtalaay la nga xamante ni daraja yi la nga xamante ni wulliif wulliita rangaleef na la ko moom sa borom min ruta bin ci ay garaat waaw li la yàlla jox ci ay garaat rëy na màgg na wa azza te na kicc idraakuma dab la nga xamante uulii te joxeef na la ko min ni amin ci ay xéewal li la yàlla jox yàlla jox ko benn mindeef su fekkente ni nag lii am na yow yonent bi salaa sallam kon bushra mbégte naa ñeel nañu waaw bushra la naa ñeel nañu mbégte mi nag maa ngi koy jagleel machar al islaami mbooloom islaam aw axussuhu machar al islaam maa ngi koy jagleel mbooloom islaam inna lanaa aji sax la ñeel ñu ruknan ponk bu réeréerée te mooy sharia bi ponk boo xamante ni xëyra mun hadimi du mu aji mabbu mukk amee wuñ ko ci fàggu waaye ñu ngi ko amee min al inayati ci jagle suñu borom subhanahu wa taala lañ ko amee lamma daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umami lamma daa ba tuddee doo ko firee ba woowee lamma daa ba tuddee allahu yàlla daa daaina aji wommat ñu aji wooñu li taatihi jëme ñu ci topp yàlla ba ko yàlla tuddee bi akrami rusli ci gën ji yonent yi kun naa lañu nekkee akramal umami di gën ji giir ñu nit ndax yàlla moo wax ni inna akramakum inda allahi atqaakum te ñëpp d'accord nañ ni ki ñu gën a tedd mooy ki ñu gën a ragal yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu gën tedd ñu am loolu ñi ngi ko ñi ngi am ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ñu amee loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam hada wa billahi tawfiq in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah ñi ngi jéggulu ci kàddu yi lu fi jub ñu xam ne ci mbaaxu yàlla la lu fi dëng ñu xam ne ci suñu gàtt aliwal ak suñu ñàkk fasaa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jazakumullah bay xalifa comme kilifa ñëw na li ci des xam naa ne julli ji rek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

la la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا la la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 Akbar rabbana wa lakal hamdu Allahu Akbar ba Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu gbọ́ngbọ́n. allahu akbar allahu akbar rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar ربنا ولك الحمد الله أكبر الله assalaamu aleykum fatiha salaatal fatih fukki lixlaas ak benn ñu tëjee ko salaatal fatih ñu def ko addiya ci yonent bi yéen a ko sëriñ Babacar si addiyam ak kilifaam yi tedd yi ak njabootam yi tedd yi ak suñu waay dawul yëpp suñu noppee ñu def fatih salaatal fatih ayatul kursi xul walaaw fàlla xeeg naa si tëye ko salaatal fatih ñu def ko addiya ci yonent bi yéen a ko njaboot sëriñ Babacar si njaboot sëriñ Cheikh Seydi Abdou Malick yëpp yéen ci suñu kilifa yi ci tukki tukki farata yi yal na yàlla musal leen defal leen seeni bëgg-bëgg dugal ci suñu ziyaar yeeg dugal ci ajo yeeg yal na yàlla faj seen ajo faj suñu aajo yéene ci xalifa bi yal na ko yàlla defal yegg ak yeggale ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yéene ci suñu kilifa yi ci tukki-tukki farate yal na yàlla musal leen defal leen seeni bëgg-bëgg ñu dugal ci way ziyaar yeeg way liggéey yeeg way aajo yi yal na ko yàlla nangu ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mbool président Moustapha Diop nee na waaw euh, président Moustapha da ne nee na léegi liñ doon wax mooy lii ñii ñooy kilifa yi nit dana taxaw benn waay bu bëggoon a ñëw gàmmu feebar nekk ci hôpital xool jàkkaarloo kilifa xelam dal yéen ñii di buuxante koskasiye jóge nañ fa dem nañ place amatul benn problème sëriñ bi ne ñu jàng fatiha salatul fatiha falaqi ak naasi salaatul fatih yéene ci jataay bi yal na ni mu tàmbaleeg bisimillahi rahmaani rahim yal na yegg ak alhamdulilahi rabbil alamin ànd ak faju aajo fi zahiri wal batini yal na yàlla upp ngelawal jàmm ci réew mi upp ko ci xadara bi upp ko ci gàmm gi xalifa bi cheikh seyd mo aboubacar mansour yàlla yàggal ko fi ba lii mu tàmbali ñun ñëpp ñu fekk ko ay ati at ca kanam téeméeri at mu tabaarakallaahu jiite ko bu ko defee bismillah sëriñ bi ne ñu jàng fatiha salaatul fatih fàllaqeeg naa si salaatul fatih allah allah allah Allah Allah Allah Allah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 عظمى لمغتنمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير بالخلق كلهم ساريت من حرم ليلا الى حرم كما سار البدر في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 دوم على خدمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وانت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه هي صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم حتى اذا لم تدع شأوا لمستبيق من الدنو ولا مرقا لمستلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم خفضت كل مقام من بالإضافة إن نوديت بالرفع مثل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 من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته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 تناصروا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا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 والأرياش والوبر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم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 مذ كانوا ومذ حشروا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وعد مقراره سام الذي شرفت به النبينا والأملاك وافتخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يزروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرضين مع جبل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 معدوما صلاة دواما ليس تنحسير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم ما اعدم الله موجودا واوجدا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 تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم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 وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم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 وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لي قلبي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 الأهوال تنحسير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم ثم الصلاه على المختار ما طلب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 من قول الفصل في أحكامه عمر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وجد لي عثمان ذي نورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم وجد لي عثمان ذي نورين من كملت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 أهل العباء كما قد جاءنا الخبر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو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 ونجلو الحبر من زالت به الغير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جنه ليل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 fatiha salaatul fatih falaqeeg naasi salaatul fatih amin ya rabbal alamin yàgg yàgg jiite si bu ko defee sëriñ bi ne ñu toog déglu tuuti rek ñu yeggale programme bi asalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala sëriñ bi ne ñi taxaw nañu toog yéen ñi taxaw ñépp sëriñ bi ne toog leen sëriñ Cheikh ne ngeen toog te bàyyi wax ji ndax li ñuy wax lu am importance la fu waay toog rek di dégg jóg taxaw bi jaru ko bismillah oustaz asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu dellusi ci santaane kilifa yi def bu ñu defee burde bi ba pare kenn ci abnaaul xadra dana joxe bunt bi nga xamante ne moom la ñu génn mais da koy delloo ci njàngalem Seydil Haaji Malick si radiyallahu taala ndax ni ko buur du tërale noonu lu ko tërale benn nga fekk ko ci abada buruuq wala nga fekk ko ci riyu dhamaan muy nuuniya wala nga fekk ko ci xilaadu dahab wala nga fekk ko ci laqat haaja tey ki nga xamante ne ci weeru gàmmu yooyu kilifa yi dañ ko sédde njaboot gi pour ñu wuutu leen di leen ko defal moom mu lay muy kenn ci laj bi nga xam ne ñoo war a joxe ñooy taxawe loolu moom muy def nag ahamiyatul isra wal miraaj fi muallafaati al cheikh xaaji malik maanaam importance bi al isra wal mi'raj am jógee makka dem baytil maqdis jóge baytil maqdis ba jàkkaarloog borom ba importance bi mu am ci dund jullit ni ko Seydil Xaaji Maalik andee moom moom la ñuy bëgg kon bay mu lay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان وشرف الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الذين آمنوا به وعزروه wa nasaruhu wattabau nuura alladi unzila maahu ulaika hum muflixuun wa baad al ixwa al izza saada al xuduud suyuuquna al ajilla fa mawduuna al yawm yatamawdau xawla ahamiyatul israa wal miraaj fi muallafaati Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu وانطلاقا من قوله تعالى سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير wa kalimatu subhaana subhaana maanaaha at-tanziih wal irtifaau bi zaatil xaq an zawaatil maxluuqiin wal irtifaau bi fiilil xaq an musaabahatihi li fiilil maxluuqiin wal irtifaau bi sifaatil xaq an musaabahatihi li sifaatil maxluuqiin wa ida kunna naaxudu ficla allah min hadihi alzaawiya wa hiya alzaawiyatu tanzih qulna yajibu an nansuba alficla alladi nasabahu allah ila nafsihi ilayh qulna anna kulla ficlan min al afcaali yajibu an yaxuda bi qaanuuni wa quwati failihi wa quwatu lfail hiya allati tusawiru lana qudratuhu ala alfial min adami qudratihi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala almuassisu li hadihi alxadra almalikiya asra bihi llahu tasrifan li miknatihi xatta raa ma ra'a min aayihi ljusumi fa qaanuunu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa basariyatuhu malghiyatun fi lfi'li wa fi lhadas wa naktafi bi hada alqadar wa afwan fi lital wa aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yu tedd yi mbokki taalibe yi mbokki pas yi ñoo ngi àndandoo ñun ñëpp di jégalu suñuy kilifa yi ci suñu ginnaaw ci kàddu yi ñu nam ma yëkkati ci seen kanam waaye alhamdulilah ba mu tegoo ci ndigal kon du lore te lu dul lore di jariñ ñoo ngi nuyu bu baax di ziyaara suñu sëriñ suñu ay kilifa sëriñ si Ahmed Tidiane si Mouhamadul Mansour sëriñ Moustapha si Al Amin ñu yóbbaale géew seeni ay mag yépp ak seeni ay wayjur fa tabaarakallaahu sëriñ si Ahmed Tidiane si Jamil itam ñu ngi koy nuyu fa tabaarakallaahu ak ñoom ñi nekk ci suñu ginnaaw yépp bu Seydi Jamil ah, fa tabaarakallaahu tey ñu ñëw indi ñaari tomb yu jur ay tomb tomb bu njëkk bi mooy al isra wal mi'raj comme ni ko suñu magu daara sëriñ Pap Njaay xaali waxee léegi lan mooy al isra wal mi'raj euh, mu mel ni ñaari baat la yoo xam ni alquran benn la tudd waaye indi xew-xewu ñaar yépp alquran dafa saxal al isra'u bind ko baamtu ko euh, miraaj bind ko bi ñëwul ci alquran comme baat waaye ñëw na ci comme sens doon sax bind nañ indi nañ saar tuddee ko surtout maarij waaye bokkul ñu sens Euh, tey ci ndigalu kilifa yi ñu war a xam lan mooy isra wal nafaraat ko ci suñu biir al isra'u ci bépp gàttal rek ñu ñu ci waxtaan wi al isra'u buñ ko waxee rek mooy aya ardiya aaya ardiya aaya ardiya sallallahu alayhi wa sallam am ñetti mbir yu feeñ ci ginnaaw dundam yu yoo xam ne ni kéemaan na yu bindkat yëpp di bind ba tey ginnaaw guddeem gi ñuy waajal te mooy guddi juddu sallallahu alayhi ginnaaw guddi googule dafa am ñetti xew-xew yu am solo ci lislaam benn bu njëkk bi mooy al bi'asatu rasul ñaareel ba mooy al isra wal ñetteel ba muy al hijra ñetti xew-xew yi dafa rëy lool ci lislaam lislaam di ko ndamoo ay noonam di ko ŋàññi te loolu du fi jug ñun jël benn tomb ci biir ñett yooyu lay war ko waxtaanee muy al isra wal miraaj isra wal miraaj al isra mooy jëmmi jug bi yent bi salaay salaam jugee màkkatal mukarram ca xaram ba jëm baytul maqdis loolu la boroom xam-xam yi tuddee aaya ardiya loolu mujiza la kéemtaan la boo xam ne nii suuf rekk la la la yem lan la war nu mu mel maam Cheikh Sidil Hadji Malick bàyyiwu ci dara donte la xadis indi na ko indiwaat ko alburaax muy daaba joo xam ni moo ëpp mbaam waaye yëggul ci fas mu nekk boroom melokaan boo xam dafa weex boroom xam-xam yi am ñu wax ni fekkoon na sallallahu alayhi wa sallam tëdd waaye comme ni ko Mouhamadul Busiri daan faral di waxee kenn la ko xam ne ni même bu musaan gëm mu bët ya itam xol ba nelawul mu fekk ko mu tëdd di noppaliku mu fëkk fëkkal ko ne ko sa borom moo la soxla maam Cheikh Sidil Hadji Malick jàngale woon ne ni borom taalibe bi bu dee ziyaara ji wala muy seeti sëriñam dafa war a dafa war a taqoo njàpp loolu bu gàtt la rek bu may tijji maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jug di rañaani dafa am nu mu toogee woon noonu mu toogee noonu la jugee jëmb yu ju borom subhanahu wa taala li ma fi bëgg wax tuuti lu gàtt rek mooy taalibe bi na fexe ba bu gisee sëriñam ak bu ko gisul na yor benn melokaan bi bu mu sensé bu mu soppiku Seydina Ali nee woon na yàlla bu muuri woon kiiraay bi dox suñu diggante ak moom man a aliyun sama ngëm toq du ci topp du du ci yokk loolu waxin la kon sallallahu alayhi wasalam sallam jugee na màkkatal mukaram suñu rakk suñu xarit ab xalif leeral na ko léegi fa tabaarakallaahu waxtaan boo xam ne nii aw dax min samsi duhaa wallahi maa sha allah eh, kon sallallahu alayhi wa jugee na màkka jëm maqdis maanaam jugee na si xaram maanaam boroom xam-xam dañu ni jugee na aljana dugg aljana ci biir àdduna fa mu jógee mi ngi bokk ci aljana fa mu jëm nee nañ ma ngi bokk ci aljana ci biir àdduna mu jugee dem fa tabaarakallaahu boroom xam-xam yi bind ci lu bari weddi ñiy dëggal papa oustaz Ousseynou Diène bi mu ñuy jàngal rahimullah bi mu ñuy jàngal xilaas bi benn bis wax na ko fii ci mbaar mi mu ni bi mu demee ba ñëw euh, ay mbokki boppam daada ci cité Abu Lahab dañu ko dem nga ba ñëw mu ne ko waaw mu ne ko alhamdulilah kon léegi dañuy woote mbokk yépp xoolal sa noon bu yàkkamti lool pour moom si boppam mu dem pour woote ji pour wax ni yow demoon nga ba ñëw bi mu demee wooteel ko mbooloo mi mu ñu ne ko dem nga ba ñëw mu ne waaw mu ne ko alhamdulilah léegi ko yëkkatil sa benn loxo mu yëkkati loxoom mu ne ko yëkkatil sa benn loxo yént saa sam yëkkati beneen loxoom mu ne ko alhamdulilah léegi yëkkati nga sa ñaari loxo yëpp boobu leer na mu ne ko yëkkatil sa benn tànk mu ne yëkkati mu ne ko yëkkati teg mu ne ko téye ko mu téye ko mu ne ko yëkkatil beneen tànk bi mu ne ko kon ma daanu mu ne ko aha yow mënuloo yëkkati sa ñaari tànk nga ni dem nga Isra wal Miraaj ñëwaat moo tax maam Cheikh Sidil Haaji Maalik Si anhu bi muy jàngale li mu njëkk wax mooy suñu rakk ab xalifa wax na ko léegi asra asra asra bihillaahu baatu asra ak baatu sara pap xalif bokkul si pap li leen wutale lu gàtt la baatu asra ci waxinu arab mooy baat boo xam ni bu fekkee allahu def ci topp malgré ñun ñëpp xam nañ mutaaddi ak lazim ñun ñëpp xam nañu ko waaye su fekkee baatu allahu daf ci topp ci sensu asra su boobaa amatoo droit wax sara waaye su fekkee baatu allahu wala luy nuru baatu allahu topp ci su boobaa am nga droit saraa ndax mi ngi mel ni Pape Xaali euh, Pape Xalifa dugg si biir këram benn si njabootam ñëw teer ñëw ñëw gattanu ko Pape Xalifa am ñeewanti ci njabootam daal di koy yëkkati leewu ko teg ko ci dënnam su boobaa lu ñuy wax Pape Xalifa yëkkati wala doom ji yëkkati na boppam lu ñuy wax Pape yëkkati na ko jërëjëf kon bu ñu waxee Pape Khalifa yëkkati ko mooy asra bihi laahu mais su fekkee Pape Khalifa nekku fa ñuy wax ak doom ji dañ naan ko yow yaa jugoon taxaw ñu ko koy ñu ko koy dalalee xelam ndax ndax ndax ndax ndax euh, euh, tasliya maanaam dinañ ci ñëw après dafa am juróom-ñeent yoo xam ne nii moo juddoo ci biir isra bi mu nekk suñu mbégte ñun euh, kon baatu isra baatu isra baatu baatu asra ak baatu sara comme Mahamad Wasiri nee na sarayta foofu gis fu fa baatu allah sarayta min xaramin laylan ila kay kon foofu gisoo fa baatu allah kon foofu moom mën na bañ a utiliser baatu asra mu indi rek baat bi directement maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu si njàngatam mu yéeme indi na ñaari baat yépp nee na asra bihi llahu tashrifan li miknatihi jumla boobu rek moo waral waxtaan wi tey asra bihi llahu tasrifan li miknatihi maam Seydi Hajji Malick inni asra ni yent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane nañ ko kan moo ko rañaane allahu mafuulu aj li ajli ñun ñi ñi jàng naxwu xam nañ ko mafuulu li ajli bu ñëwee rek mooy day leeral ban cause lan Cheikh Ahmed Tidiane Diagne kat waa kay Cheikh Ahmed Tidiane Diagne kat jàngalekat la lan moo tax mu nekk jàngalekat ngir gis kon asra bihillaahu tasrifan rañaane na ko tasrifan bàyyi xaali mi ngi mel ni baatu tasrif dafa ñëw mu nekk martaba boo xam ne nii suñu borom subhanahu wa taala da koy jox yent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la yent bi amee baatu sërif turu sërif foofu la ñëwee ci moom borom xam-xam yu bari dañu wax ba ci bu tawali bi nga xam mooy borom xam-xam bu mag bi ca keer dafa ni lu ñu war a wax asra bi maanaam sallallahu alayhi wa sallam yàlla rañaane na ko taklifan lahu wala tasrifan lahu bu ñu nee taklifan lahu mooy benn sens rek lay am comme da ko woo ba mu ñëw mu chargé ko ay mission mu war ko dox moom ak xeetam waaye bu dee la lahu mooy chargé na ko ba pare waaye nag yëg nañ moom lim ko chargé am na ci mbégte mu ne ko la lahu kon tasrifan mooy benn baat bu ëmb ñaari baat waaye taklif mooy benn baat kefe kon tasrifan moo gën a yaatu si la baatu surif bi ngay dégg jugee bokkul la nag comme surif ñenn ñi nga xam ne comme genre Abdou Dieng gi déedéet Eh, kon dangay dégg ni nekkul sallallahu alayhi wa sallam comme jëm moo dem waaye li fay déggee mooy comme tey jii boroom xam-xam yi comme ku mel ni Ahmad Badawi ca Égypte dëkk bu ñuy wax Tanta man dem naa fa mu nekk benn région ci biir Égypte Tanta Ahmad Badawi benn boroom xam-xam la nekkoon ku am baatin diggante Tanta ak màggatal mu karam dox na ko fukki jéego ak benn mu tuddee mu daf la ñu tuddee tayyu boroom xam-xam yi bind ne sallallahu alayhi wa bi mu jógee mag di dem baytul maqdis fas yi wala boog alburaax mi ngi ko def ci ñaar fukki paa ak lan ak benn foofu la tayyu jógee léegi ñoom daawuñu nangu waaye bi ñu demee ba seen ay boroom xam-xam commencé xam nga léegi-léeg mutasawif bi li muy nangu bokkul ak ñu ma ci kàddu gi ki gëmul mutasawif li muy nangu ñoom ñaar duñu yem ki nga xam ne ni dafa gëm tarixa li muy nangu ci xam-xam ki gëmul tarixa mën na koo bañ a nangu ba ci rayaan bi ñu lay demee kon asra bihi llahu tasrifan li miknatihi miknatihi baay cheikh baay xaali mooy sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee taayif ñu ko fay njubal ma ci kàddu gi méttital di ko yi di ko toroxal ci waxin ba yàlla addu ni ko waxal ma alak leen ma dajale montagne yi seen kaw ma duma leen ci sa kanam ngay gis wala waxal yow yow lay déglu lan la ko wax bu leen laal izhabu antum tulaqa bal nañ laa jéggal naa leen ñoom qawmun laa yaalamuun nga déggee si ni kon comme sallallahu alayhi wa sallam Euh, ni ko français di waxe honneur boobu mu am ci baal gi mu baal ñi ko doon toroxal ñi ko doon gaañ ñi ko doon ñi ko doon ŋàññi yàlla bi mu ko wooyee ba mu ñëw def ni ko tasrifan li miknatihi al mikna bi maanaa comme ni ko Muhammad bu sooy waxee wa bitta tarqa illa an nilta manzila illa an nilta manzila al mikna bi maanaa atamakkud maanaam bi mu ñëwee si la boroom xam-xam yi sukkandiku daat mi julli julli day indi tasliya maanaam day dalal xel day indi stable day indi jàmm day indi juboo day indi soppante moom julli li miknatihi tasrifan li miknatihi ndax li tax mooy tasrifan li miknatihi mooy ñëw bi mu ñëw indi sëriñ dinañ ci ñëw ci fin bi euh, sallallahu alayhi bi ma bi ko yàlla wooye ba mu ñëw yéeg na jóge na baytul maqdis dem na sidratul muntaha taxa fa xew suñu rakk pap xalif wax na ko nettali na ko jarul ñu si jaaraat waaye bi mu demee ba yegg ki la invité ba nga ñëw du yam rek ci teral la jox la nga lekk jox la nga naan waaye fekkee soppe dëgg la daf lay wa daf kër gi ne la kaay fii lii la kii lii la kii lii la kii mooy sama ministre nangam kii mooy sama lii kii mooy sama lii wan ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al dafa waxoon wax bu am solo mu ni dugg aljana yomb na waaye gis yàlla moo jafe dugg aljana yomb na waaye gis yàlla moo jafe nee na gis yàlla mooy al izza mooy tedd nga kay nee na nag bu dee dugg aljana nag moom karaama rek la nee nekkul lu yéemi kon lan mooy xataa raa maa raa min aayihil yusmi sallallahu alayhi ni yàlla waxee ak moom ci aaya ardiya bi ci raa ak aaya ni mu waxee ak moom ci aaya samawiya ñoom ñaar raa yi bokkul ñaari raa yooyu bokkul dëgg la nag alquran indi na ñaari yëpp dinañ indi leeral tuuti xatta raa maa raa min aayihil jusmi xam nga yàlla fële dafa ni li nuriyahu min min ayatiha nuriyahu foofu verbe bi mi ngi mu nekk verbe iraa bokkul ak verbe raa lan moo wutale ñaari verbe yooyu la mooy bu ñu nee raa mooy kooku gis na naññ leer na maam Seydi Xaaji Malik wax na ko raal mawla fa xatafa waaye bu nee verbe iraa mooy koo xam ne nii warul gis-gis an tajala man laa yara yara an tajala man laa yara yaraa comme bay xaali mii bu takkul ay weeram du gis weer yi ñaaw na bu takkul ay weeram di gis mu jël ay weeram takk ngir mën a gis loo xam ne nii dafa lëndëmoon kon moom bu avant muy takk ay weeram gisul woon mais bi mu ko takkee mi ngi gis verbe iraa ak verbe raa foofu la ñu wutee kon sallallahu alayhi wa sallam sikk amul li gis na suñu borom subhanahu wa naka la ko gisee mooy yàlla moom mooy ki nga xam ne nii mooy faail bi faail man mi am sama doom mu gàttanuma ma yëkkati ko wax dëgg yàlla balaa kenn wax sama doom ne yow yaa yaa njool yaa kawe xanaa man mii la war a wax ndax man maay faail bi man maa ko yëkkati kon tasrifan li miknatihi hatta raa ma raa min ayihil jusimi foofu diggante verbe bu raa la ak verbe ira bokkuñu euh, bu ñu jugee foofu ci gàttal rek xam nga comme temps bi daf ñu xaw a kii li nga xam ne ni moom lañ ci yokk lu tuuti mooy maa yustafaat min al isra wal mi'raj lan lañ war a jàngatee ci biir isra wal mi'raj isra ak miraaj yan yan yan leçon morale lañ ci war a amee yan lan lañ ci war a amee eh, boroom xam-xam yi maam Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu bind na wa fi zakin wa fi zakin xam nga bay xaali boo seetloo xuruf abajadi al xuruf al hijaaya yëpp buñ dee ñaar fukk ak juróom-ñett boroom xam-xam yu bari nee nañu ñetti xaraf bokk na si xaraf yi si ëpp doole nee na mooy ban ak ban ñu ne mooy waaw nuun miim olof di ko tuddee wan ma saalum saalum yi ñoo koy tuddee wan ma buñ lee jàngal asraar dañ la koy wax ñu baal ma dañ naan la comme ñetti xaraf yi nga xam ne ni moo ëpp doole ci moo ëpp doole ci ci xuruf hijaaya mooy waaw nuun miim ñaareel baat baat bu fa commencé rek bàyyi ko xel te xam ne am na njariñ maam Sidi Hadji Malick commencé waxam wa fii zakin même ba muy wax ci wàllu biasa bi wàllu daawa gi dafa commencé baat bi min min baadi taa in wala min maam Sidi Hadji Malick ay waxam ku jar ku dañ ko war di topp euh, wa fii zakin xat euh, xalat fii sëhri mawlidihi amal min nubuwati amal xub lil xuzami Pape Khalifa wax na ko léegi nii nee na maam Seydil Hadji Malick waaw comme gàddaay gi mi ngi am ci ñu bari ñetti ñetti wax lañ ci wax ñii ni ci fukkeelu at bila ci gàddaay gi ci nubuwa gi ñii ne ci fukkeelu at bi la ak benn ci nubuwa gi ñii ne ci fukkeelu at bi la ak ñaar maam Seydi Hadj Malick inni amal xub boo demee ci sarxa bi nga xam ne ni moom la Saïd Ba def ci xilaas dafa ni amal xub bu ko waxee baa gi da koo sodda kon duutul nekk atum fukkeel bi mais day nekk atum fukkeel bi ak ak ñaar ci atum fukkeel mi ak ñaar léegi boobu mooy wa ji ma asrata ama jërëjëf euh, nga déggee si ni kon baat boobu la muy baatu xobb bi am na ñaari sens sens bi mu am bu njëkk bi mooy ramzi bi fukkeelu at bi ak ñaar ñaareel bi mooy baatu xubb comme xubb boroom xam-xam yi dañu ni as as-salaat am na ñu wax ni nekkul baatu waaw as am na ñu wax ni nekkul baatu te am na fu wér fu ko teg parce que ñoom nee nañu alquran le mu wax ni bi lisaanin arabiyyin mu biin mu biin rek moo lay wane am na ay baat yoo xam ci biir du ba arab ndax baatu as-salaat doo ko gis ci alquran mukk moom kese mu ñëw nekk baatu salaat boo xam ne nii amul waaw du amul amul bu amee waaw nee na kon jàppal ni ña jiitu woon daan nañ jëfandikoo baatu salaat lu jiitu sallallahu alayhi wa sallam daan jëfandikoo baatu salaat moo xam muy si jamono yénent moo xam muy si muy si ëllu fatara daan nañ jëfandikoo baatu salaat baatu salaat boobule li taxoon ñoom ñu ko jëfandikoo muy jullit muy ku dul jullit mooy da daan boole daraanu waral cofeel daraanu waral cofeel ci seen diggante ñoom ñaar diggante ñaari nit comme am na ñoo xam ne même bu ñu nekkee ay yéeféer am na loo ne alquran tuddee wa maa kaana salaatuhum maanaam ñoom même la ñu nekkoon sax neexul suñu boroom waaye amoon nañ ci ak déggoo ak juboo baatu salaat boobule am na ñu ko wax moom ak baatu xayaat ak ba maanaam alxayaat ak baatu zakat ñetti baat yooyu lañuy wax ni duñu ay origine arabe sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ci suñu borom subhanahu wa mu gisante ak moom mu gisante ak moom mu jox ko limu ko jox euh, boroom xam-xam yi nag ni bi mu waññeekoo maam si laxaaji Malick sax dëggal na ko ne bi mu waññeekoo ba ci asamaanu juróom benneel mu fekk fa yent yàlla Muusa mu wax ko ni ko loo fa jëlee mu ne ko jox na ma julli ci gàttal xalifa wax na ko léegi ba mu gën a yaatu mu waññeekuloo ko pour mu dellu pour mu dellu la nga fay njëkk jàngatee ci biir isra wal mi'raj ab xalifa mooy baatu woyof woyof way jur war na jàngal taalibeem wala war na jàngal njabootam woyof ci kanam képp ko mënti doon woyof wàcc sa bopp bañ a fëgg sa dënn ne mën naa yent yàlla Moussa xam na ni ci waxin moo mag yent yàlla Muhammad waaye yent yàlla Muhammad mooy kilifaam yonent yàlla Muhammad mooy kilifaam lan moo tax sallallahu alayhi am woyof gu doy ni mu mu ne ko delluwaatal mu dell kooku moom la ñuy wax jikko koy wàcce sa bopp isra wal jàngal nañu ko tawaadoo isra wal miraaj jàngal nañu benn jikko bu am solo muy al wahda al basariya al wahda al basariya mooy bennoo ñun suñu biir bennoo moo xam bokkuñu daaira nañu bennoo moo xam bokkuñu famille nañu bennoo moo xam bokkuñu tariqa nañu bennoo moo xam sax bokkuñu euh, euh, euh, diine nañu bennoo al wahda al basariya sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko ci biir isra wal mi'raj bi la fait que moom mu nangoo dem mu koy wax muy dem di ñëwaat kooku am na lu muy jàngale muy bennoo bi ci topp mooy bi nga xam ne nii bokk na ci li ñu war a jariñoo ñun ñëpp ci biir isra wal mi'raj bi mooy kersa kersa sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee di ñëw di dem di ñëw ba ci yéen di yàlla ba ci mujjëlu yoon bi lan la ko wax Seydi Hadj Malick nettali na ko Seydi Hadj Malick yàlla na ko yàlla fayal mustahyiyan la wax sallallahu alayhi wa sallam ni wastahiyaytu min rabbi am naa kersa sama boroom mënatumaa dellu nga déggee si ni kon euh, nit ki mu yilif wala ki ko yilif ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ci moom war na am si ñëpp kersa moo tax ni woon boo amul kersa lu la neex defal ku amul kersa lu la neex defal alxayaau min al iman euh, fa tabaarakallahu beneen bi nga xam ne nii mooy fi jikko yi nga xam ne nii ñun war nañ ko rotee ci biir isra wal mi'raj euh, bokk na ci tasliya tasliya tasliya mooy euh, bu ñu amee problème bañ ko bañ ko bañ ko wàccee dem géej noppalu ko wala dem place wala nangam déedéet tasliya mooy boo zurufee maanaam boo amee stress ba mu ëpp sa bopp noo war a def sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko ci biir isra wal ba muy dem isra wal mi'raj sallallahu alayhi wa da ko fekkoon mu nekk ci ay humum ay ay jafe la ko fekkoon moo tax yàlla fëkk fëkkal ko ñëw invité ko bi mu ñëwee bi mu ko joxee julli mu commencé di appliquer julli zuruf yépp dafa dañ nga gis ni kon julli rek day dindi zuruf maanaam day dindi jafe-jafe problème day dindi stress bu mu mënti doon jàppal ba sell nga jublu penk julli booy sëlmal jafe-jafe ya lu mu bari bari day daal di dañ loolu benn la euh, bi ci topp mooy def na ci itam si suñu biir raxma yërmande yërmande nan la defee yërmande moom isra wal mi'raj suñu boroom subhanahu wataala taala bi mu ko joxee juróom fukki julli yi wàññi boobu mu ko doon wàññi bu ko neexoon mën nañu ko jox juróom fukki julli ku ko ku ko ku ko matalul mu duma la waaye yërmande cofeel sopp gi mu sopp sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam mu ne aha comme loolu am na sama diggante ak sama borom ngal la waay yéen itam soppante leen moo tax sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi nee nañ bi mu jugee bi mu jugee isra wal miraaj xadis yi mu doon waxaat yépp xadisu soppante leen bëggante leen leen bëggante leen arrahma bi nga xam ne ni moo ci nekk te mu gën see ëpp solo ci biir isra wal mi'raj bi mooy ñaar al ibada ar ramziya ak al ibada as sulukiya lan mooy al ibada ar ramziya ak lan mooy al ibada as sulukiya al ibada ramziya mooy man kat sama bopp bi day métti Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ni ma mu laay si utal paracetamol nga naan ko kooku orienté na ma bu ma naanee garab gi damaa war a wér loolu la ma yéene su ma ko naanee sama bopp bi di gën di métti may continuer di naan sama bopp bi di gën di métti kon war nañoo xoolaat bopp bi wala ñu xoolaat comprimé bi al ibada ramziya mooy julli sëgg ak sëgg yi ci am avant ba jàpp ak la ca aju lépp moom la ñu tudde al ibada ar ramziya al ibada sulukiya mooy boo jullee ba pare war naa am lu mu def si yow li muy def si yow mooy bépp ñaaw téef bu la yàlla di jëppee wala booy jëppee sa bopp ëllëg wala bu la sa moroomu nit di jëppee da koy da koy diñisee ba mu set inna salaata nga déggee si ni kon su fekkee su fekkee eh, jaamu naa suñu boroom julli naa ni mu waree may continuer julli ni mu waree waaye ñu gis ni kat mu laay moom mi ngi julli ginnaaw bi mu jógee si isra wal mi'raj yent bi ñëw digle ko ni sallu kama raaytumuni usalli sallu kama raaytumuni usalli parce que ñëpp xam nañ ni salaay salaam mënoo jullee tibqal asli mi jullee mënul nekk saabu moo asaab bi saabu sax mënul nekk waaye man nga moo tax mu ne la sallu ay raaytumuni bu ne woon sallu kama usalli rek kon mu jafe waaye sallu kama raaytumuni usalli bi mu bi ñu ñëw julli di matal rukoo yi di matal sujjuut yi jàpp serlu daf la ca awar yépp waaye ñu gis ni ñun ñoo ngi gën di bañante suñu biir ñoo ngi gën di noonoo ñoo ngi gën di mën a waxante lu ñaaw moo xam jàkkaarloo la moo xam si jotaay yi ñuy waxtaanee la mbóorante yi moo xam ci biir réseaux yi la moo xam moo xam moo xam fu mënti doon ñun ñoo ngi julli jàkka jaa ngi fees waaye ñoo ngi gën di bañante ñoo ngi gën di wax lu dul dëgg ñoo ngi gën di nay ñoo ngi gën di am ay jikko yu bon lan moo war a nekk suñu taxawaay nañu xoolaat comprimé bi nga xam moom la ñu jël wala ñu xoolaat suñu bopp ndax métti bi fan la nekk al ibada aramziya wala ibada sulukiya ñoom ñaar dañoo war di ànd bu ñu àndul rek xamal ni ni nga jëlee comprimé bi baaxul wala su baaxee war ngaa xoolaat sa bopp fa tabaarakallaahu point bu mujj bi nga xam ne ni moom la ñu mujjee te point bu mujj bi mooy ginnaaw isra bi wala ginnaaw isra wal bi yépp ak point yiñ ci am si njàngat bu ñu war a jëfandikoo buñ ko jëfandikoo ba pare maam Cheikh la xaaj Malick lan la wax ni moo ñu war wax na ko ci biir nuuni ya ba muy ba door daf ne woon isil ijaadu wal imdaad minhu nabiyun bis na ah aynul uyuni raqa fawqal buraaqi ila samaai wa daana lahul aha wa fi l israai qaalu gayr ra'a al mawla fa aywa alayna alhamdu kay alayna alhamdu boobu moo kay alayna alhamdu kon boog mbokk yi ñun ñépp li ñu bokk war mooy nañu ànd sant yàlla ci lan ni'matul islam ni'matul iman bi nga xam ne moom la ñu sallallahu alayhi indil comme cadeau comme sërike kon nañu ànd sant yàlla xam nga léeg-léeg sa jur wala sa sëriñ dina tukki ñëw indil la sërike bokk comme ku mel sëñ Assane nga xam ne bu demee Maroc bu ñëwee du la indil sërike maanaam sërike bi sax ñu tax bi sërike euh, euh, bu la indilee sërike boo ñëwee sërike bi dafa war a nekk sërike bu matale sërci boo xam ne ñaari côté yëpp la war a mane kon fa tabaarakallaahu kon ñun ñëpp am nañu sërca bu duun sërca bu mat sërca li ñu war mooy ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon alayna alhamdu hamdan qarra hinan safa anna almughafa kulla diin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu shukran haj Moulay waaye nag ëppal nga six minutes waaw naa la siñ ëppal nga kon fa tabarakallah xam naa dañuy jox Baye Cheikh mu tëj jotaay bi ñu sànni ci rekk benn kàddu bu ndaw ci lan moo waral al isra wal mi'raj boo demee ci téere bu ñuy wax euh, durratul waa'idin moo gën a andi sabab bitax tax yonent bi riñaan ndax ku ñuy wax uh, Usmaan ibnu Hasan moom dafa wax ne anna al arda iftaxarat ala alsamaai fa qaalat al ana xayrun minki li anna allaha zayyanani bil bilaadi wal bihaari wal anhaari wal ashjaari wal jibaal wa gayriha maanaam dañu wax ne dafa am dialogue bu doxoon diggante asamaan ak suuf suuf ne asamaan maa la gën asamaan na ko noo ma gëne mu ne ko yàllaa ma taarale li nekk sama kaw dëkk yi ndox yi fi nekk garab yi nangam nangam asamaan tontu ko moom itam na ko man itam maa la gën ne ko ndax jant wi ci man la nekk weer wi ci man la nekk univers yépp ci man lañu nekk buruuji arsh kursi yu jann yépp fiya ci sama biir lañ nekk kon maa la gën suuf tontuwaat ko na ko déedéet maa la gën ndax néeg bi nga xamante ne góoru yàlla yépp yonent yépp dañ koy wër ñi ñu yónni yépp awliyaa yi jullit yépp dañ koy wër kon maa la gën asamaan na ko déedéet man baytul maamur ci man la nekk te malaaka yi koy wër ñu ñëw duutuñu dellusi ci man la aljanna nekk jannatul mawaa bi nga xam ne arwaaxul anbiya yi foofu lay nekk ci man lay nekk awliyaa uy seen ruux asaalixina seen ruux ñu kon ne si jalag boobu suuf dal dina ko maa la gën ndax ki gën ñépp mu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ma dëkke te kooku lépp lu am moo ci gën bi mu ko waxee ci la asamaan dotam luum na mënatula tontu si la woññeeku ñaan yàlla na ko lottu naa ba tax ma noppi mënumaa tontu kon nag wa tawajjahtu ila allahi fa qaalat ilahi anta tujibu lmutarra ida dacaaka fa asaluka an yascada muhammadun ilaya fa atasharafu bihi kama tasharafat alard bijamalihi waftaxartu ne ko nag dama bëgg man tam comme ki gën ci ñépp mu nga ca moom di fa dama bëgg moom itam mu ñëw yéegsi ci man ba ma tiitaru ni suuf di tiitaroo ci la yàlla yebare nag ñaan ga yàlla nangu ko ko yebal jibril na ko demal quarante mille buraaq yoo xam ne benn bu nekk bind nañu turu muhammad ci moom ñoom na ci aljanna kenn ku nekk yaa ngay for mais mu am benn buraaq boo xam ne mu nga beru forul di jooy jibril laaj ko lu tax ñii ñëpp di forte foro mu ne ko mankat ki ma sopp doon ko xaar ay junniy at yow nga na la jëw jëlsi te man cofeel gi lakk na ma jibril na ko kaay kon ma boole lak sa cofeel booba si la ko jële loolu mooy histoire li tax al isra wal am muy bayna samaa wal ard seen Euh, waxtaan kon loolu lañ doon def taaliq matal nga ay ayyadaka allah wa nasaraka ni niñ ko waxee yàlla na la yàlla jàppale ci biir jàppalel si biti yàlla na la yàlla defal wér ak wérle yàlla na yàlla yokk sa xam-xam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox baay cheikh mbooloo mi sëriñ Cheikh ne moom de xanaa ñu nuyu kilifa yi te ñaan rekk moo ci des ndax lépp mat na nag xadara bii benn làmmiñ rekk la am ku ko waxee rekk yóbbaale nga ñépp waaye suñu gouverneur bu région de Thiès moo bokk ak ñun julli gi tey mu di alxaaji Alioune Badara Mbeng fa tabaarakallaahu ñu di ko nuyu di ko dalal mu ngi ànd ak monsieur le maire alxaaji Demba Diop ànd ak monsieur le sous-préfet de Dakar Plateau Alaaji bi jàlloo ci turu njaboot gi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal waaye nuyu suñu soppe suñu mbokk sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy bu sama wayjur Cheikh Seyid Mouhamadunil mustafa ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam ci jamono bu yàgg depuis ba ba tey juróom benneel wala juróom ñaareelu fani burd mu ngi ñëw di ànd ak ñun di ñu wettili ca dundu mag ña ba nëgëni fa tabaarakallaahu ñu nuyu alxaaji Maodo Cissé di woy jur di sang moomit mu ngi ci jataay bi ak kilifa yi ñu ko bokkal yépp di leen nuyu di leen ziyaara di leen masawu coono yi ne am nañ fi it suñu soppe alxaaji Alioune Sall muy rakku président de la république ñëw na bokk ak ñun ànd ak procureuru Tiwaawan bi fa tabaarakallahu ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu waa jàkka ji yépp nag nuyu suñu rakk bi doon wax léegi Moulay Abdul Aziz si di ko ñaanal wér xol yépp sedd na xel yépp dal na lii rekk lañuy wut fu ñu toll di ñaan yàlla na ko yàlla gën a saxal ndax mooy ruuxu xadara bi mooy xam-xam nuy itam alxaaji Pape Xaali Njaay ci leeral bi mu leeral ci isra wal miraaj yal nañu yàlla fayal maam Seydi Xaaji Malik ne dama daan dégg ci sama waajur wu tedd wa sëriñ Abdul Aziz Al Amin bu ñu nee Seydi Hadji Malick mu ni moo dem yoonam bokkul ak gaañi de responsabilité bi mu jël mu ni yenent bi sallallahu alayhi wa mën na maa ëpple tànk wala mu guddle ma tànk waaye fu mu teg tànkam bu teggee ma teg sama tànk walakin tafakkar waaye ku sopp Seydil Hadji Malick defal ni ñu màggal ko kayfa dajaatum muqtafan bi sunnatal hadi nabi muhammadi fajar timis jàkka yi diri fajar timis jàkka adratul juma allah jiri waaw Sénégal loxo maam as ci biir bi lu ko mooy gaal gi dootul dee nu saaf la mu saf ka ko mus rek la saaf ku le ne as du rax lënd nasiril xaqi dootul fay. aqibil xaqi dootul fay. al atel xaqi doy na lay. dëgg du réer lii mooy aar. li aswaatim fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaaya masjide. sëriñ bi ne bi ci des. mu ni asxaabu rasul ñoom ñeent ëllëg fu ñu taxawe man Maodo ma juróomeel leen waaw suñu yàlla mayee ku mel noonu ñun mënuñu koo roy ba dee rek yàlla nanu yàlla fayal Seydil Hadji Malick amin nanu gën a dellusi bu baax a baax asra bihi llaahu bi ñoom pap di génn xam-xam yi di waxtaan ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ni seydi xaaji malik bokkul ak gaañ téere yépp dañuy tagg dem yam ci yam tagg moom day tagg di jàngale lii ngeen waxtaane léegi ci asra bihillahu lan moo ca topp asra tashrifan limik waaw waaw nati xataa raa مر أمين أي هرجس على نبي ورلم أجمعين سلام ربنا دائما خليفة بسمع مننا وفي زكين قد خلت من شجر موعد من نبوتي عام الحب للقدم أسرابي لو تشريفا لنبتي حتى رأى مرأمين مريه الرجل على نبي والي أجمعين ربنا دائما سيدي شيخ سمام نانا رفيق الروح في ست فتاح آلي سما البيبان واس تبشر بقدمي قدمي على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما مدى مالك أمل مرام رفيقه الروح في ست فتاح آل سما البيبان واستبشر من خادم خديم ناسا ويجروا تدوى الحاج مبيدون yal na yàlla yokk leeram amin moo ñu ko firil lu mu wax tara xaayonen yéeg na apolo baa ngay langaan mu tong ca jibril nistu mu fëgg asamaanu benneel ñu ni kooku kan la mu ni mën a ñu ni kookoo àndal sariir mi foor na baaja nga asamaan yi mu ni sayyidu saalihiin kooku mooy sayyiduna Muhammad Rasulullah ñu ni est-ce ni kàccit ubbi Adama ngi taxaw ak i malaaka ñu teeru ko musigal ko rëkkal ko ju ñu ngi asamaan nabi sant leen gërëm leen taraqaay def nii ñu màggal yoneen tara xaa apolo baa ngay langaan mu tong ci ak jibril nis tuut mu fëgg asamaanu ñaareel xoolal insa gi taxaw mu raqaay def leen ni ñu màggal yoole tara xaayo nen yëg na benn nappaloo ngay langaan mu toog ci ak jibril nis tuut mu fëgg asamaanu ñetteel yuusufa ngi taxaw tara xaay def leen nii ñu màggal yoone taraqaa yoone ni yéeg dani nappaloo ngay langaan asamaanu ñeenteel idrisa ko teeru asamaanu juróomeel muusa ko teeru haarona ko teeru asamaanu juróom benneel muusa ko teeru asamaanu juróom ñaareel ibrahima ko teeru samaam naan bi aadamin marra isa yusufin wa thumma haarona muusa wal abi rahimi def leen nii ñu màggal yoone ne kon fa tabarakallahu nee ñu siyaar ñépp di ndokkeel ñépp waaye di jaajëfal ñépp ci seen cofeel ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi ne am na koo xam ni boo ko soppul du la jaral yenn waaye garanti bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko garanti maxtulita xubbi bi qalbi ahadin illaa wa harrama allahu jasadahu min annaari loolu jar na sopp yonent bi ba de mag ñi dañ ko daan ñaan ak di ko ñaanlu ngir sopp mag ñu baax ñi du caagin da leen a bëgg sopp rek sopp leen da ciy ñaan di ci ñaanlu ba yàlla def ngay seen soppe mu ni bépp xol boo xam ni ku xar xol ba fekk ci sama cofeel man yont yàlla muhammad yaram wa ëmb xol ba yaram wa xaraamal nañ ko safara waaye ku fi teew rek waaye soppe yont yàlla muhammad nga te ku sopp yont yàlla muhammad yàlla sopp la in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumu llaahu wa yaghfir lakum dunuubakum wallaahu gafuurun rahiimun kon fa tabaarakallaahu yàlla na nu yàlla fayal Seydil Haaji Malik ni mu nu mate kilifa yàlla na yàlla baaxenu ba nu mat ko njaboot ñu ngi ziyaar ñu ngi baalu xaq ñu ngi masaw asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu tàll sëriñ bi ñaan ne fatiha falaqeeg naa salaatul fatiha jërëjëf si amin nangu leen ñaan amin ya rabbal alamin yàlla na nga yàgg a yaag say rakk ak say mag amin moom kay rien lana minu shafaatu fi gadiyan yanalu rida kullu abdin muwahidi ala xatayin fi dambi aw anta mudi jarairuna tumha bi jaay muhammadi ida shufi al mahbu jaza al mubahraju فاحرج جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا شفع المحبوب وجاز المباح تيمم به وانوي التبرك باسمه ولا تعد في شيء طريقة رسمه فقد قسم المولى لو خير قسمه ترقى إلى سبع اتباق بجسمه وقد أشرفت أملاكها وتجلت المحبوب وجاه المبارج جرائنا تمحى وجاي محمد فا يا المحبوب يا ذو البحر ومن صاحبه بعد تعرف قدره ينا فهذا ينقي للرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وزيره جبريل وميكال إسره فألا بالشمس بين بدرين في جوال هدنا يقحى بديع سفي المحبوب بجاز محوت بحفظ الله في كل هيئة ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلمن تاب سن أمد بجرأة أظل رقاب المشركين بوطأة دلوعهما من ذريا ليس تدعو تمہارا Okay. شمسها ينن فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسوى أتاعته جن الأرض طوءا وينسوى وفضل بسبقه الفريق المبدأ fasallu كلهم مقتد وأنت الإمام آمين وكن إلهي تجعل الأسابع للسر آخذا يميني تابعا محمد خير البرية أتى دينك قد دعا له كل فتى قدموا جميع الأنبياء والرسل في رضاك الأتقياء درج ما درج من تباقي له ويحلو يخرج إلى الآفاق أراه رب العرش ما يرضاه ذا من الأنوار ما يخشاه ربي رسولك النبي الأمي صل عليه الشافع المرضي هدى بشير ومبشر نذير وطاهر مطهر بدر منير ياسين طه حاشر وعاقب ومقتف مندين ونجم ثاقب أجب لنا لنا بجاي بابك العظيم آمين عين النعيم والصراط المستقيم آمين لطيف يا محسي فأتمم غرضا آمين لنا كذا المراد حيث عرضا آمين على المقفي سيد السادات آمين صل وسلم واسع العباد آمين ظمآن ماء الوصل يا رب الفلق آمين فنجه مولاي من شر القلق آمين يدعوك من يرتب الحروف فمن صلاة فاتح دعاء قمن آمين معتمدا بعونك الكريم آمين وتم قصده من المنظوم صل على سيدي في المعراج آمين سلم على ذي الشرع والمنهاج آمين وآله وصحبه المنتخبين آمين الراكعين الساجدين المهتدين آمين اللهم يا من أظهر الجميل آمين وستر القبيح آمين ولم يأخذ بالجرير آمين ولم يتك سترا آمين ويا عظيم العفو آمين ويا حسن التجاوز آمين ويا واسع المغفرة آمين ويا باسط اليدين بالرحمة آمين ويا سامع كل نجوى آمين ويا منتهى كل شكوى آمين ويا كريم الصفحي آمين ويا عظيم المن آمين ويا مقل العثرة آمين ويا مبتدئا بنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غيتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غيتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي وغير أسألك أن لا تشوه خلقتي ببلاي الدنيا ولا بعذاب النار فامن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في دنيا أخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أترك السماء محتلة بسعودها بركة مكة بركة مدينة بركة فاس بركة تواوان بركة سيد الحاج Hadji Malick barke Cheikh El Khalil al-Fatiha ma'a salat al-Fatih nangu leen ñaan nangu leen